ji comprendre nañ parce que dafa am immunité mais. mais yàgg yàgg dina wuy. yàgg yàgg dina wuy te bu wuyoo dina xam li ko fay fekk incha allah. ayca yàgg yàgg dina wuy ji bu wuy ji aussi dina xam li ko fa fekk euh, yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy suivre en direct aussi maa ngi leen di ziar gis nañ commentaire yëpp dinañ ñëw ci yéen euh, tonto Cheikh Fall ah euh, xam naa ni moom mi. xa maanaam daanaka li nga ko faral di gis ci plateau euh, allo campagne bi waaye tey def ñu rejoindre ma fàttali leen ni moom moo transhumé nee na transhumé wul moom moo ñëw ci këru dëgg moom moo jugee Pastef ah daal di ñëw ci moom moo jugee PDS daal di ñëw euh, Pastef ah, tey nga gis euh, actualité bi nga xamante ne actuellement am na ah, muy Madiambal Diagne daal di nañ ko porter plainte ki ko porter plainte di maître Bamba Cissé avocat bu Ousmane Sonko ci ay kàddu yi nga xamante ne yëkkati woon na ko mm. tey ba nga déggee lu nu mel ah, tey ban analyse nga ñu ci mën a defal. non analise bi ma ciy def bu bu simple la. ban la. parce que damay il faut ñu xam kan mooy Madiambal Diagne. il faut ñu xam kan mooy Madiambal Diagne. waaye Madiambal Diagne. wax ñu kan mooy Madiambal. waaye la bu nekkoon fii parce que jaar na Thiès. Thiès doon na jànge Thiès. micro micro. oui doon na jànge Thiès. Madiambal bi. waaw Medina Fall. ah Madiambal waa la. jàngee na Thiès xam nañ ko bu baax. Mhm. xam nañ tamit Ousmane Sonko bu baax. ma mhm. Madiambal jaar fi nekk greffier. Mhm. tey ñu nekk ñu ni journaliste la. oui te tey mu nekk devenu un milliardaire. Ah. taxaw nekk euh, patron de presse. Mhm. ànd ak ab régime. régime bi bi mu ñëwee il bi vu que ni. Mhm. depuis euh, deux mille euh, deux mille vingt. sentir na ni avec Ousmane Sonko. parce que wax na ko sëriñ bi hmm. nee na ko kii buñ ci waxul mooy dina dem dem ba deful naag dina jël réew mi il faut sëriñ si ngeen jóg wax wax ak moom ah Madiambal dem na si sëriñ si benn sëriñ wax ko ko damay bañ a tudd suñu sëriñ bi sax parce que ñun dañu kiyee noonu oui dëgg la lépp ñëpp gis nañ ko mhm. donc en boobu mu am si Ousmane Sonko mhm. mooy problème am Sonko lu mu wax mhm. Madiambal dina def dina indi ay contradiction dina indi ay sos dina indi ay ay koy teg ya nga xam ni ay di ko a wutal ay gàllankoor di jéem a yàq dara mais nag hmm. ñoom ñaar bokkuñu. bokkuñu lu leen wutale. parce que ñoom ñaar. ku ci nekk xam nan la. Hmm. xam nañ li moom li ko indi cees Thiès. daam lu ko indi woon Thiès. waaw loolu moom dama koy bàyyi moom moo xam na ko te bu te bu deful ndànk nag. bu ah. bàyyiwul Ousmane danañ ko ko wax. Ah, ah, ah waaw bu bàyyiwul Ousmane Sonko. waaw danañ ko wax nu mu nekk woon Thiès. parce que moom usmaan Sonko bokkuñu. yàlla ak yàlli la. macha ba bokkuñu ci jikko. waaw bokkuñu ci juddu. oui bokkuñu ci dara dara dara dara dara la nga xam ne ay mën na nga leen a méngale. et pourtant ay ay sénégalais lañ ñoom ñaar ñëpp. non ay sénégalais lañ rek. Hmm. wax mais nag sénégalais boo ca gis tamit dafa am na nga xam ni moom noonu la la yàlla bindee. d'accord noonu nga juddoo. Hmm. yaa ngi dégg noonu lan la xamee. Hmm. waaw ñun dañoo dëkk ci dëkk bi. mu jaar ci dëkk bi ñu ànd ak moom. man mii dem naa kër ma jàmbal ban ko fi bi ko fi Abdoulaye Wade arrêté. waaw yaa ngi dégg si benn kër cooy faamam toog naa fa keroog mhm. ànd fa kilifa mhm. ma kilifa gi booba ba léegi fekk muy doog a jóge prison toog nañ fa ba onze heures si guddi recevoirul kilifa gi te kilifa gi ñu nag moom a àndoon te xam na li tax recevoirul ko moom ma jëmbal waaw te ci kër jabaram la woon kër kër gi pied dans l'eau ah. kër gi waaw li may wax xam naa ko bu baax kon donc na bàyyi Ousmane Sonko Ousmane Sonko du nawleen hmm. mais problème mu intérêt la xam nañu léegi ay intérêt am sama menacé léegi le problème c' est ça. mooy problème moo tax mu bëgg attaquer Ousmane te fi mu nekk nii la le coup est déjà passé. Hmm. Ousmane Sonko moo yor réew mi. Hmm. président Diomaye. Hmm. moo yor mooy président de la République. Oui. Ousmane Sonko mooy premier ministre. il faut ñu jox ko cër. dépassé na ay opposants ay kii ak yooyu. léegi képp kuy wax ak moom. da nga koy mën a respecté di ko jox cër. lii ñu ko convoqué tey. si muy ay Ousmane Sonko. bu régime Macky Sall. yaa ngi fàttaliku temps Ousmane Ngom. bi ñu koy fekk Kolda di ko di di dajji porte hôtelam. buntu hôtelam di ko dugal ci ci ci kii bi. Eh, avion bi di ko di ko indi. devant le procureur directement. pourtant mënoon nañ ko ko def li tax defuñu ko te régime Macky Sall moo defoon loolu Ousmane Ngom. Mhm. Ah? te boobu ci campagne la nekk. Mhm. législative. donc nga xam ni kon léegi réew maa ngi changé mhm. ngir yàlla nan bàyyi réew mi mu dox ci changement yi nga xam ne moom la Sénégal yi bëgg la mhm. amoon mënatu la ne waaw donc boo fekkee nag ay affaire ay mbir ya nga xam ni ay secret d'état la mhm. ñu justement l'armée nga ciy wax ñu araftu la nga bañ mais li ci des yow yàgg yàgg yoon yéen yéen yéen am problème. mais dootul problème bi moo dul dootul Ousmane Ousmane nee na moom ku ko képp ka nga xam ne wax nga ci moom la nga xam ne am na ñu koy régler. Mhm. mooy la la le maître aw aw waaw porter plainte. Mhm. yaa ngi pour ñu woo ko pour mu ñëw wax lan moo tax mu mu muy attaqué Ousmane Sonko. Mhm. yaa ngi dégg à travers que par discours bu mu def. mu jël lu ñaaw teg ko ci kawam. loolu c'est du jamais vu parce que loolu kenn du politique kenn xamul lan la. ah politique wul ne actuellement. non loolu li muy def du politique. politique parce que Ousmane bu ñëwee. Hmm. dafa am programme am bu muy teg di ci waxtaan. oui bu ko waxee euh, askan wi ba pare. Hmm. daal di dugg nag ci politique. am ay cabaxalam yu muy def. ak lu muy def tooñ. yaa ngi dégg hmm. wax li muy wax daal di taxaw. mais ka nga xam ni moom amul programme amul dara. moom bu ñëwee. danaan ma ngay wax wax ju ñaaw ci kawam day nangam day lii day lii day lii day lii te ñun dépassé nañ foofu. Mhm. ñun suñu problème mooy que. mooy lan. programme euh, Sénégal deux mille cinquante bi. deux mille cinquante référentiel bi waaw. référentiel bi mooy seen programme. ci loolu lan ne ci loolu lañ bëgg a liggéey. Mhm. ci loolu lañ xalaat pour réew mi jëm si kanam. mais affaire yu transhumance nag moom. Mhm. dama bëgg ñu jël ko teg ko fee. man dama jóge PDS ñëw hmm. bokk ci ñëw eh, dugg du dugg eh, Pastef da nga dugg Pastef waaw dama jóge PDS ñëw dugg Pastef Pastef dafa am nag lu ma naqari PDS la nga ah. xam ni loolu du ma ko nangul kenn te hmm. du ma ko may kenn hmm. mooy que PDS fi mu jaar dama koy waxaat de fi mu jaar ak Macky Sall fi mu jaar Macky Sall fi mu jaar ak Karim Macky fi mu jaar ak parti bi ak Macky Sall fi mu jaar ak Abdoulaye Wade ñett yooyu yëpp lañ baale ñun ñi ñëpp Macky Sall dafa mu jël def pression suñu kaw. Mhm. lu nekk wax nañ nu ko lu nekk digg nañ nu ko ñu bañ. Mhm. gis nga Ablaye Wade fi mu nekk nii. oui mi ngi Fann Fann Fann résidence. Mhm. villa bi mu yor da ko luyee. kan moo nangu këram. Macky Sall moo ko dëkk bi Macky Sall. kan moo kan moo doon démanteler le PDS. Macky Sall ah moo xañ euh, PDS ñaari élection présidentielle demul c' est kan moo tax moor yi bari fii au Sénégal ah quatre-vingt-dix et quelques morts. Mhm. yaa dégg kan moo fi renvoyé de élections mhm. kooku kan moo ko mos a def fii ci président yi fi jaar yëpp. ba mhm. ay morts di ci am ay morts di ci am. même pas six mois PDS daal ni te liste bi muy nekk. Macky Sall moo koy jiite. loolu mooy problème bi. loolu mooy problème bi ñëpp lan moo waral loolu. ak le pourquoi. le pourquoi. le pourquoi. parce que Ablaye Wade amul lu mu waxul Macky ñëpp di ko dégg. Mhm. kii bu ngeen ko xamoon. kii bu mhm. ngeen ko xamoon. muy mhm. wax ay wax ñu naan loolu la ñuy wax wax du ñaaw la. boobu ñu ngi toog bi mu koy wax ñu ngi toog ci ci ci kuuru Ablaye Wade Ablaye di ko wax. waaw tey mu dem ba ci ak ñu ni Ablaye Wade Macky Sall moo jiite liste bi. mais ñun loolu moo tax. te ñun aussi tamit dañu jaar ci deux ans de renouvellement di jaay ay carte fu ne ñu dugg fa. ñu fal ñu am ay ndombee tànk yu bees ci parti bi nag. man nekk président nekk président euh, fédération urbaine de Thiès. donc yooyu. Mhm. boo ko amee ci parti. Mhm. di évoluer di dem. yaa ngi dégg di gën a amaat xalaat ci biir parti bi. di gën a am ndombee tànk ci biir tàkk parti bi. yaakaar nga ni sax au moins. au mhm. moins. bu liste député ñëwee. yow mën ngaa war a nekk sax suppléant. oui mais daal dañ leen a sacrifier. mais dan non ça veut dire que dañu liggéey liggéey bu rafet ba ba monter cinquante neuf fédération. di yaakaar ni Karim day ñëw pour ñu ànd ak moom campagne. oui ñu bu amoon sax suñu groupe parlementaire benn sax baax na. yaa dégg ñu tas suñu yaakaar te ñu ko tas ñëpp gis nga position yenn féete léegi parti bi est-ce que amati amati na avenir. déedéet yaakaaruma ko léegi nag ñu toog xool ñun tamit. Mhm. xam ni ñun ñii sénégalais lañu. danoo am ay ay jarbaat. danoo fi mhm. am ay doom am fi lépp. Mhm. léegi Sénégal dafa am lu lu lu fi feeñ. Mhm. kan moo feeñ mooy politique Pastef Ousmane Sonko. bu teg projet ba nga xam ni. ku si nekk di si gis sa bopp boo waxalee yàlla. dëgg la ku si nekk di nga gis sa bopp. boo ci jàppee. Sénégal yi jëm kanam. boo si jàppul. Sénégal day jëm kanam parce que ñëpp xam na ni fan jëm yàlla da ciy def sutura. ñu daal bàyyi lépp. waaw daal ñun léegi politique bi ñu doon politique dootul bokk politique léegi bi ne dañuy soutenir. dañuy soutenir projet projet bi. Pastef waaw daal di vision waaw. oui daal di ànd ak Pastef. Mhm. ànd ak ñoom euh, Ousmane Sonko. ak ñoom Birame Souleye. ak ñoom maire Diakhaté. boo gisee nii di ñooñu ñoom ñoo danoo bokk du gox. d' accord mais musuma see toog kenn daan ni ko demee dem Pastef. Mhm. parce que loolu boo ko doon def. Mhm. dañ lay dañ da ngay ñëw di pour di tàggoo pour di non. waaw damaa bind sama lettre d' ba pare ba léegi sax tooguma ak Birame tooguma ak Diakhaté. war nañ leen léegi maa ngi Pastef bokk ci comité électoral départemental bi. Mhm. bokk ci comité de quartier bi sama koñ. Mhm. yaa ngi nekk ci di campagne à chaque fois. waaw te laajuma leen un franc waxuma ak ñoom yaa ngi dégg. Ah. dañuy dañuy séenante rek. d'accord donc man noonu lay évoluer. da nga gis lu baax muy dem daal nga ni da nga cee dem jàpp ca. mën i ci bokk. d'accord waaw am na solo bu baax a baax. moo tax ma la du transhumant transhumant moo transhumant boobu dañ mhm. ko génne transhumant mooy ku nekkoon fenn mhm. muy neex ñu lay jox ay responsabilité nga nekk ci ba mu jeex yaa ngi dégg loola jeex nga bëgg ko faa bàyyi bëgg a démarché leneen lu bees mhm. non non ñun ci dara dañoo gëm ay waddis ko gëm idéologie wadd di ko di ko accompagner ba mu jël pouvoir ñu toog ba mu perdre pouvoir ñu koy accompagner ba amaat yaakaar ba doom ji ñëw ñu amaat yaakaar doom ji xëy def lii mu def eh. muy Karim bientôt yi daal mu leen doon sonal. waaw bientôt yi Karim doon leen wax. non non bientôt yi effectivement parce que fi mu nekk boo ko analysé bientôt yi yëpp c'était du faux. parce que li mu doon wax lépp du dëgg. comme Karim. waaw parce que boobu ba léegi communiqué wul. li mu leen doon wax yëpp du dëgg mais sax lii ñu li PDS def ni Karim parce que Karim moo war a communiquer wax ak nit ñi. Mhm. defal leen mais Karim ba léegi waxul. ba léegi waxul ak yéen. ba léegi waxul si Karim ba muy dem ci Macky Sall takk wàllu Sénégal waxu leen ko yéen. ba muy dem ci Macky Sall waxul bi ba léegi waxul. ah yéen nag yéen a yéen a gël seeni bagage kon. non non man non wa wa wa roñ bagage bi. Hmm. dafa fekk mu ànd li nga xam ni moo xew Sénégal waaw il ñi xamee ko noonu. d'accord ñun duñ ay changement dañuy politique non politique. Hmm. d'accord danañ ko def mel nag dafa am leneen lu ñuy def. Hmm. waaw mais nag politique moom dañ koo bëgg suñu xol. dañ ko bëgg seen xol mais nag am leneen lu ñuy def moo tax kenn mënuñu si. Euh, di si dugal si gàmm ba nga xam ne daal vraiment daal. ñu ngi noonu <laughs> am na bu baax baax a baax Ndeye Astou am loo xam ne fa ama leeral ko. muy lan pour Sénégalais yi wala internet yi wala tout le monde ñëpp comprendre ko. muy lan. parce que maa ngi gis ay ay quelques manipulateurs yoo xam ne ñu ngi siy profité wu di wax lu leen neex. ci affaire euh, transhumance waaw dañoo comprendre wala dañuy comprendre bëgg manipuler. Hmm. ñoom ni ñuy définir euh, transhumance ak transhumance li muy signifier bokkul. atia jox ñu suñu citation bi transhumance mhm. mooy pour ni ñuy seetaan mën a comprendre nga jóge ci benn camp. Mhm. boo xam ne fa nga nekkoon. yàq say nawle. mu daan neex. Mhm. dem ba neexatul nga jóge ci camp boobu dem ci beneen camp pour am fa dara. d'accord pour ñëpp comprendre loolay transhumance. maa ngi gis démb am ñu naan wax de l'humanité à l'animalité. ñoom li ñuy wax dara amu ci. d'accord ñu jéem a dugg ci philosophie loolu